asalaamaaleykum mbokki internet yi mbégte ak contentement saa su nekk di jàkkaarloo yeer si Actubuzz TV nee naa leen dañuy dem seeti ay ndaanaan saa su nekk di leen bégal ndax yéen a safoo Actubuzz TV saa su nekk rek yéenay topp suñu ay programme ñu nit saa su nekk ñuy topp loo xamante ne moom moom moo leen di bëggal ba tax na dañuy seeti ay ndaanaan saa su nekk tey nag ki ñuy dalal sama pap la ah mu nekk Djibril Diop mi nga xamante ne macha allah dafa ñëwoon marqué empreinte am ba tax na rek dañ koy dalal waxtaan ak moom nuyu naa la maa ngi fay di la bëggee di nuyu àdduna di nuyu suma fans di ñaanal sama yaay yàlla na suuf oyof ci koom sama papa yàlla na suuf oyof ci koom di la ziar di nuyu suma caméraman bi di nuyu les amis de Djibril Diop di nuyu estafu Djibril Diop di la déglu papa ku ne Jibril Diop ne musique ndax ci lañ la xam ba tax na rek wax waxeet du bëri wax olof Njaay ko wax dangay ñëwaat tuuti rek ci li nga xamante ne mooy li nga woyoon maam Limaamu Laay nga fàttali ko ñu ñu fàttali ko ko tuuti rek ma ñëw ko ci wax ji wala ci woy ci woy bi yaa shérifa Useynu Laay leeral nga sa wutig maam sama doom ji nasaraan baa ngi wuyoo lay mataar laay Mamadou Matar laay Zeyna sunu mam li maam mooy li maamu sunu maam sunu maam jey burum yoo fi géej moo wataaji boo daaya laay yaa ma salalin si wal jinni inni rasulillahi ilaykum suma yu xaddis ibnu xaali daw dondooy fii ci Cambérène ma kañ maami sërif waseynu laay nasaraan baa ngi wuyoo lay Matar laay Zeyna Mamadou Matar Laye. ne man laayeen laa léegi. laayeen laa. Mhm. maa ngi ci laayeen yi léegi <laughs> ku dégg loolu mu nekk lu neex sénégalais yi ràññee la loolu ak li nga xamante ne woyoon nga ko yow ak Aïda Samb mu aw la mooy tegte ku la tegte ba nga màgg. nga génne ñaari yooyu rek sénégalais déggatuñ la gis gisatuñ la lu war a raarte loo. alors damaa tawatoon nag toog di làqatu séeréer yi ma tàncoon rek tànc ma benn coin rek ñu doo jóg. waaw sama xarit séeréer yi nag samay xarit lañ moo tax ma leen di kii nii man ndeysaan sama yaay séeréer la mais tawatoon rek reculé woon doon defar waat mais dafa yàgg père mën nañ ne mat na 12 ans boo bëlee kenn gisu la kenn déggu la waaw xam nga aw yoon bu soree mag a cay dem mbaa ndaw lu sawar te ñeme coono yàgg gën yoon moo gën yàgg leneen yàgg bi yàgg tooguñu woon yaafus danoo nekk suñu ruq di liggéey xam nga tey da nga ne ñu fàttelu ko bàyyi mais ni ko defee si album bi ak ni ma ko way nii est na différence. voilà loolu la. kon mën ne sa bii moo gën a neex. <laughs> yow nag dangaa dégg xam nga ci diggante bi màgg nañ fi am nañ fi expérience am nañ ñunu gunge te yoon li ci gën a neex mooy nga am ku gunge su amee ku gunge boo demee ba nara tartari sax dugg ci ndëgg sërëx ñoom ñoo lay retourné waat conseillé na la fi nga teg sa tànk du foofu fii la kon sant. waaw sant daal tey ñaan li nu dëdmal sunu borom dugal ci loxoom ni mu ko dugaloon fii lu ko raw mu dugalaat ko fii ci barke yonent bi. dañoo gis ni far sénégalais dañuy faral di comparer naan Djibril Diop ak Abou Thioubalo dañoo ñëw jékki-jékki fay kenn déggatu leen loolu sa feebar boobu na c'était mystique wala feebar la boo xamante woon mën nañ ne ci ci ci ci feebar boo xamante ne la tubaab ñoo la ne da nga feebar feebar bii nga feebar. yow xam nga xam nga loolu duma ci wax feebar la boo xamante ni yàlla moo teg. moo teg mooy tegaate ndogal feebar la boo xamante ni yàlla moo ma ko teg te amaana mag ñu njëkk ñi sax dañ daan toog suñu gëjee feebar di jullit di ñaan yàlla naan xanaa danga maa fàtte mais gars yi xanaa dañuy fàtte man Jibril Diop chaque jour heure bu xëyee ñu ngi may teg ci rajo yi yàlla bu ma bu ma jegee sax fay bay fay man du ma mës a fay su ma dee woon ba am 450 ci biir suuf ay at du tax ma fay surtout appel Limaamu Laay bu jotee ñëpp dañuy fàttaliku Jibril Diop boobaa nag nit ci lañ commencé naan ana Jibril Diop ana Jibril Diop donc Jibril Diop war na génn xamal ni ci ci lu mu nekk. waa ci li ma nekkoon mooy liggéey morso bi tey boo ko tegee day mel ni tey la morso bi gën a riche ci àdduna maa ko def américain defu ko espagnol defu ko tubaab defu ko man sénégalais bi maa def morso bi gën a riche ci àdduna man la. lu tax nga morso bu gën a riche. waaw booy seet moo gën a riche morso Seydina Limaamu bi. bu doon États-Unis am naa ci disque d'or xam nga euh, yàlla nag soo nekkee ci yoon ba am lum la ki am na lum lay xëy na dafa ma doon digg dindil xaaxaam yeeg yooyu mais comme que dindi na ko ba mu set nañ ñaan rek ñu xool ñëwaat. dañu naan yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. léegi li ñuy génn mu bañ a doon tàndu xam nga am na ñu fi génnoon benn affaire ñu ne ax ah kii daf ko tandu mais dafa am ay artistes yoo xamante ni fii ci Sénégal luñ génne day neex luñ way mu neex. comme genre titi yi ñooñu lu ñu lu ñu génne day neex bu génne li nga ni bii moo dàq mu génne li nga ni bii moo dàq am na ñoom suñu boroom moo leen defaral noonu te damaa bëgg bokk ci lim boobu. d'accord son limaamu boobu sa réflexion bopp la wala dañ la koo bindal nga woy ko. non man maa ko fental sama bopp man aw ma lu may bindal maa fental lépp sama bopp ñëw woy ko suñu boroom dugal ci loxoom. texte bi li nga ci wax yëpp yow yaa ko xalaat. man taalibe Serigne Babacar bi. maa toog inspiré wu ci Seydina Limaamu bindu loolu génn ko sénégalais yi bëgg ko murit tiijaan laayeen xaadir euh, njaago yi sax dañu ko bëgg ba waa hôpital Fann dafa amoon kun kun hospitalisé woon hôpital bu musaan crise dañ koy sentiré mais soo ko tegalee sama son rek day daal famem ooma maire boo xamante ni mësul wax amee AVC bin may oo maa ngi nekk xabru Seydina Limaamu ñu ooma fii ci ZAC Mbao ñu fofona fofona yi seen yaay ñu oomam ñu ne maire bi day déglu sa way maire bi bi ma duggee këram ba yuuxu bés boobu la gëj a wax bés boobu la njëkk a wax ci la mujjee waxee ba ni génn àdduna xam nga lu ma wax yàlla na nga am disque door ak ni làmmiñ bi damme ñu teg ko ci pus-pus bi dama faa jóge ut muy taw taw bu metti ñu teg ci deux semaines maire bi génn àdduna dëjëm maa doon séddale añee ma fasanteeg ay doomam kóllëre ba ni may wax ak yow fii ci Zac mbaaw li mu def dafa bari. woy bi bi nga ko woyee mu génn lan moo nekkoon retour bi. lan moo nekkoon. retour bi ban retour nga am xam nga léeg nga woyee woy li nga ci xa li nga ci doon xaar doo ko ci doo ko doo ko ci am mais woy bi bi nga ko woyee lan la lan la def ci yow. ci sa carrière. lépp wallahi indil na ma lépp indil na ma ay opportunité yu garaaw indi na ma lu bari. indi na ma ñoo wax sax baaxul ci télé la. keroog damaa dégg ci bi sa benn sa boo xam ne dañ laa invité nga ne morceau bi nag mu ngi lay dundal ba léegi. 2010 ba tey ci laay dund morceau bi 2010 ba tey ci lay dund su ma toogee samay post kii su ma nee nit nangam te te ñooñu ñëpp bitim réew lañ ne dañuy daje appel rek ñu ne ma taalib bi bàyyi laay du koy sonn xaaral def ak man teraanga morceau bi indi na ma lu ne. wallaay laazim léegi bi may ñëw fii rek laa dajeek benn promoteur bu dëkk euh, rab dafa daw ba droité sama tànk ñu naan ka manjoon ma wax ak moom mu tegtal ma fi mu dëkk ne ma ñëwal sama kër léegi léegi bi may ñëw ci barke Seydina Limaamu ñu gis ni ñaari son yooyu label bi nga xamante ne mooy Prince Art ñoo ko produire yaa ngi foofu ba léegi wala génn man mësuma nekk prince aar moo waxaat ko tey man wata watawat laa laa doon liggéeyal Bouba Ndour te chaque jour gars yi sa bëgguñu ma ciy wax mais boo leen ma laajee il faut dama leen doon. il ngay leeral Sénégalais parce que rareté bi nga raar moo tax. raar bi du woon ama nga euh, concours la woon concours 1000 artistes ñu ne soo ko gañee dañu lay defal album yóbbu la tournée internationale. man lan ma waxoon def naa ko ci 9h minuit ma pare li ma waroon def ci 4 mois ci benn fan laa ko def mu jeex kon man moom moo ma ameel moom buuba man aw ma lu ma koy toppee. mais loolu fàtte naa ko lii ñëw laay waxaat. moom daf la waroon yóbbu tournée internationale. noo dem naa tournée internationale sama album la waroon génne. te génnewu ko lu tax loolu. Ah, après naa ko oo laaj ko ne ko yow lu tax génnewoo album bi Sénégal yëpp a nga koy laaj lan moo tax génnewu li ak lu riis lu am qualité yi. te li nga fa woy gëm nga ni bu génnee sénégalais dañ koy bëgg comme ni ñu bëggee li nga xam ne jot nga ko génne. man warutumaa def loo xamante ni sénégalais yi duñ ko bëggee. parce que musique de règle sama sama carrière règlement de compte la dafa am ñoom dama leen wóolu teg leen fii ci sama connaissance ci la ñuy dund ci sama connaissance ci la ñuy dem di teg dil te ñi ma koy def ñëpp yàlla mi ngi may àtteeg ñoom ñu ngi leen di duma dama lay xam ñu retourné tey ñu ngi fii Kër masaar di di kii ay kii te foo leen gis dañ leen di yërëm doomu tuur am na loo xam ne kenn du ko ko def. barki Seydouna Mohamed ma toog nag reculé wu ne xaaral naa xoolaat sama bokk man xool ban qualité laa war a mën a àndal su dee kenn nit la war a doon ma ànd ak kenn nit kooku su dee cent personnes la war a doon ma ànd ak cent personnes yooyu mais ci dëgg am na ñoo xamante ni ba jusqu'à président dama leen di déranger. ñu te ñu bokku métier mi. musicien suñ ñëwee fii wax. ñenn ñu du ay musiciens yenn ñi dañuy wër sax ne ne ay ménagères lañ su ñëwee ci kii fabriqué ay wax man xam nga lan laa gën a ragal ci nit kuy ñëw ne ma diw nee na la. lu ma waay waxal da ko sos utuma fu may fréquenté xaw ma rëddu këru kenn fu mu féetee te yàlla bu la tappalee garaatu kilifa dafa am looy moytu lu ma waay waxal da ko sos te loolu day yokk nit fekk nit ku set wicc yaayam di soxna. yaayam di sët ci Seydina Limaamu di xaagaan nga judd ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad sa yaay taasalu la benn yoon ngay wax ci moom yenn nii yàlla da lay duma am ñoom kenn du leen laal. loolu dañ ñoo gis ni dafa far dafa bëri Sénégal mooy ñi nga xam ne dañuy ànd ak yow di mbuboo sa tuur pour faj seen soxla. muy yenn artistes yi suñ demee ba xam ne sax Jibril la ngi liggéey ak Jaja wala Dosa. wala Momo mi dañuy jéem a détourné dosaa mais man ñi may àndal mat nañ barki Serigne Babacar Sy lu ma waay waxal da nga ko sos utuma lenn lu may lu may toog ak nit doo aw ma jot boobu sax man papa yoruma yaay ma man heure bu ma xëyee may dundal 37 bakken képp kuy responsable di nga toog ci naan ci grand place naan diw ne la diw ne la koo gis muy toog am temps di wax sa papa la yor wala sa yaay la sa yaay moo la yor mais ku xëy añ reer ndekki màbb ci sa kaw ak dund gi nu ñu yokk mburu yekk yokk ceeb yekku diwlin di nga am jotu toog di wax nan liggéey te man damaa ne ci liggéey sama musique bokk na ci ñooñu mu njëkk nekk règlement de compte wan na leen ni yàlla am na lu ma jox ci yëf kii wër di liggéey ak kii wax yemuñu taatu keppaar goo dem fekk leen fa. Bouba Ndour génnewul sa album bu mais yow est-ce yaa ngi waajal sa bopp benn album boo xam ne di nga ko mën a teg ci loxo sénégalais yi. waaw man waajal sama bopp a tax ma jóg man fu ma toll damay waajal sama bopp ma fii waajal sama bopp moo ma indi. ci beneen façon nag ci nu ci ku may liggéey nu mu ko bëggee rek damay indi loolu ah fekk yàllaa ngi may may dund ma man di toog ak nit ku soxla ci sama liggéey maanaam soo ci soxla woon 10 pour cent man dinaa la indil 100 pour cent man parce que lii kafewu ma ko foyow ko kafewu ko foyow ma ko réew mi daa yaatu bu ñu lay engagé dañ naan la ñëwal ak sa voix kese ngay dem ci ay kilifa diine ay sëtu Serigne tubaa dama toog soxna sëriñ Mbacke soxna loo ooma ne ma man du déglu musique mais sa way bi dafa ma neex ñëwal Daaru Musti nit non wax baaxul. wax il nga wax nag ñun xamuñu il faut nga xamal ñu. wax baaxul liggéey rek a wóor Zeyna liggéey rek a wóor gis nga man su ma ñëwee di ànd ak jajaam yi jajaan ni ko yàlla def naa ko bàyyi noonu mais ni ko yàlla def su ma déranger rek iñaan day dugg te man yàllaa ma def ci xolu jaam yi ku ma gis bëgg ma tous di bois yàllaa ma defal loolu xam nga tey am na artistes yoo xamante ni tey li tax tey nga boole déplacement ak dérangement ànd ak sa site oo jibil jóob ne ko kaay te bi nga ma woowee lu ma la wax xaaral ma jox la sama numéro ménagère li raw li bët. cax nga ñu de li ci kanam raw li bët d'accord papa milieu showbiz bi mu nekk lu doy waar nga nekk ci yéen musiciens yi. Euh, ñi leen di entouré dañuy yàq tout le temps parce que boo xoolee jeunes yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñoo leen wuutu mooy ñoom Wally Seck ak ñoom Sidi Diop tout le temps fans yi dañuy ñaawal seen diggante bi loolu ban gis-gis nga am foofu en tant que euh, mag bi nga xamante ne yaa ngi ci musique bi te yaa ngi ci showbiz bi. man li may def maanaam ki nga xamante ni ñoo bokk lu ñuy liggéey man ak yow du ma may kenn ku jóge fee koo xamante ni dafa am lu muy utti si man di wax sama diggante maak sama nawle. dañuy naan ñoo yéen amoo leen problème mais tamit dañuy génn naan yéen <laughs> da ngeen foo maanaam mën nga gis sa morom musicien kafa moom reetat te fekk au fond li fa nekk mooy. waa am na ñu muy dal am na ñu yàlla am na ñoo xamante ni li li li yàlla def waali daf leen a déranger am na ñu mel noonu am na ñu mel noonu. am na ñoo xamante ni ni yàlla def Pape Diouf daf leen di déranger ñëpp yemuñu su ñëpp yemoon kilo ak liibar du am mais dafa am ñoo xamante ni seen xol yee lëndëm te Serigne Bamba dani nit boo génnee loo dajal sa xol la soo dajeek lu weex tal xamal ni sa xol a mel noonu soo dajee lu ñuul kukk sa xol a mel noonu waaw te ñu koy def ñëpp seen métier bënnul seen métier bënul nit doo bàyyi sa métier bokk ak nit métier yàlla defal ko ci nangam ngay toog di ko xarab te boo dajee moom bu la 200000 léegi nga jël ko lekk ko nañ bàyyi affaire foo yi te ànd ci dëgg nit warul lekk ñaq nit ba pare toog di wax ci moom lu ñaaw parce que lu mu la jox nga lekk ko tooke lay doon te yow man xëy am biir day la yoo loxo day la yoo gémmiñ day la yoo artistes yi ngay génn def lu nice ñu naan la kër gi te kër gi ko ci jox douze coups mu ne la ko pan mbër yi ñoom dañuy bëre mais dañoo yéeneente jàmm def ay association làmb di nga xam mbër mi ngay dajeel mais musique doo xam ba ban ban mbër nga ciy dajeel parce que ñu ci ëpp dañoo foo soo toogee ñu ne nga génn benn affaire nga toog ñu naan nice na soo wanee ginnaaw ñu naan kii day yuuxu rek waxu fi dara dañ bàyyi naxante bi loolu moo tax yàlla wàcceel nu nattu ah pepe yi sax raw ñu ci musique Guinée Bissau. mais musique Sénégal dafa avancé quoi qu'on puisse dire jeunes yaa ngi bay seen waar. mais waxewuñ ci bay waar ñu ngi bay seen waar ah ñëpp a ngi bay seen waar mais nañ yéenante lañu wax da nga da nga ma laaj ni ñu koy doxalee moo tax ma wax la ñu ngi bay seen waar mais yéenante bi. moo tax tardement am gis nga nit soo nekkee ci benn action ci jiitu toppal ci ginnaaw mën na laa dimbali sax. nangu dafa jël cëru bañ na ñuy nangu na ñuy nangu. na ñuy actuellement musique senegal bi pour yow kan moo kan moo kan mooy njiit bi kan mooy jiite. Youssou Ndour yu Ndour mooy roi bi Abdoulaye Darou Mbar maa jorog Matar mooy roi bi. xale yi nee nañ Waali la de mooy le roi de. Waali nekk fi sax amul jotu sax di xëcc bu nee Youssou Ndour Waali lañ ca teg. Youssou Ndour mooy le meilleur génération yi dafa am un deux trois mën na li muy def ak Wally mais Youssou Ndour ku ne le roi wala dafa am beneen roi Youssou Ndour la ñu le mooy njiitu ñëpp. nañ ko nangu nañ ko nangu ah loolu nañ ko nangu. <laughs> fan yi gis nañ ni yaa ngi yaa ngi yaa ngi fekk naa la ngay shooting ce qui veut dire am na looy waajal est-ce que mën nañu xaar sa clip wala son. waaw kii nañu xaar maa ngi ñëw maa leen gën a namm. ñu ay singal nag paa ñun li ñu bëgg mooy album bu mat sëkk. mën nag album wax dëgg fa yàlla jafew ma mais fi réew mi toll. coon Seck yàlla na ko yàlla yaram dañu su ngeen xamoon ni way mettee fent ngay njëkkee luye studio jënd bande fay technicien fay musicien ba pare enregistré mën naa jëm ñaari weer mën naa jëm ñeenti weer pirate baa ngi ñuy gaañ gaañ yërëm leen kan moo fi jënd ci seede yaa waroon nga am jëkkër ju wey ba mu génn album ba xam kan muy jëndi seede yi bal buñ ko enregistré studio rek dem na ci portable yi mm-hmm. mais nag maa ngi waaj pour single man bu nekkoon man ak man rek man gis nga métier soo amul ku la ci bëgg rek da ngay xàddi mais ñi la ci bëgg moo tax man may kërti kërti. yow nit dañ laa bëgg. waaw benn morceau bu ne quali maanaam studio benn single bu bu am qualité mi ngi lay dikkee 400000 wala 350000 ci ci ci ci borom studio bi loolu borom studio bi da ciy jàpp rek mu soog a àgg foofu tey nga yor benn 400000 dem yóbbu ko studio yor benn 500000 dem yóbbu ko studio. man dama yor benn 500000 dem yóbbu ko studio toog kon fi ma jëm dama ko visé am gëm-gëm bi naa bañ a dajeeg nit ñu foo rek te ñi ma te ñi ma yàlla booleel am naa ci ñoom yaakaar maag ñoom doonatul ay estaf ak yooyu dafa mel ne dama bokk ñoom ndey ak baay kaf di ree bi mais yàlla na yàlla na nu yàlla musal ci kuy wor. ak kuy fabriqué parce que man dama gëm dama gëm àndandoo gis nga tey bu ma toogoon nga ni moom moomoo wala dosa wala jajaa mi maa ngi sa kaw fii ku joxe nopp da ngay dégg te Sénégal kaay ma wax laa gën a yomb kaay ma may la nañ ma xaar maa ngi ñëw léegi. màggal bi noo koy waajee. màggal gi ah dem màggali rek dem ñu màggali rek ci jàmm ñëw ci jàmm ñaan fa soxla yi dis ko sëriñ Fallou. affaire bi génn wër àdduna ci barke Serigne Fallou ci barke Xaadimu Rasul loolu rek la ah. ñu ngi koy waaj bésu Serigne Bamba bi ki nga xamante ni dafa garanti ahlu murit garanti Sénégal gis nga suñu kilifa dina ñi ñàkk ki ñaan gis nga sëriñ Bamba bi muy samp di bind Matlabu Chifa yi xam nga fi mu naan anjil Chifa ka makaana day mënoon naa wax anjil Chifa afaako fi fi ahli Touba. mënul nekk yemale Touba mais dafa dafa yaatal anzil shifa aka makaana daa'i wa hablana al isala taati wa kuffana al kasala fil awqaat sëgëm ñoo ñooy yaatal suñu maam yi di yaatal ñun ñu ñëw ci musique bi ku jiitu nga koy galgal te bu la boo xale nga jël lekk est-ce que c'est normal ñu ngi waaj màggal gi dugg ci bismillahi rahmaani rahim oto yi dal nank daw nank dem nank accident ba ñu am ci barke yonent bi naqar bañ am ñu ñëw concentré wu ci affaire Djibril Diop bi. <laughs> sama xel léegi la sama question bi léegi la sama xel <laughs> kan nga bëgg a defal featuring fii si nag ci musique bi. non bari na nag bari na. waaw ñoo xamante ne bëgg nga def ak ñoom featuring. man boo paree dañ lay woo dañ lay woo wala yow nga woo leen. man bëgg naa def ak featuring Momo Dieng. Elas bëgg naa def ak featuring Wally Sidi Diop Tarba Mbaay ah ay Abdou Galas woykat yooyu yëpp bëgg naa def ak ñoom fitri wallaay lazim et puis Bass waaw dafa woykat dëgg bu woyandoog bu defandoog fitrin Bass Thioung ngeen xam ni Bass Thioung commencé gul dara. waa gis nañ ko mu defoon benn boo xamante ne moom a Viviane. yee dafa mën et puis ak Pape Birahim waaw moom bëgg naa dafa moom vitrine. sant mais ñoom am nga ak ñoom relation wala. ñoom ñëpp sumay xarit lañ. hélas kay te soxnaam su ma mbokk la jën joogu borom kaay jabaram su ma mbokk la ay tar bu mbàyyi ñoom ñëpp bu ma gisee dañ may jox ñaari loxo barke Seydina Mohamed naan ñun yee ñun ñoo ngi sa ginnaaw jox la cër ah man duñ ma waa barke Seydina Mohamed aw man waruma wax ci musique Sénégal ci kenn lu ñaaw. ñoom ñëpp su may xarit dañ ñëpp ñëpp ñëpp te danoo mën a way moo tax may bëgg def ak ñoom featuring te temps yi ay technique yu bees tàq lañ yor technique bu way bu moo ci ay wàlli ay ay ay kay te gars yooyu noonu ñooñu boo def ak ñoom featuring ay Sidi jóob réew mi day wàcc dëgg réew mi day wàcc gis nga loolu nag lañu war a def waaw ah, su ko defee ñu yaatal musique gu Sénégal bañ a xajal kenn suñu diggante am na ñoo xam wayuñu dugg nañ ci fubal bi ba seen carrière jeex gisuñu fuñ dem ñu ñëw topp ci ginnaaw ndaanaan mais bu ñëwee nañ suudee tey wax wax ju rafet barki Seydouna Mohamed. am na musiciens yoo xam ne pour pour ñu def euh, featuring seen diggante du yomb parce que xas na ñaaw ba pare maanaam fans yi ñaawal nañ. ba ah, pare fans yi ñaawal nañ ko ba pare te lépp lu ñaaw ay tànk mën naa jóg toog waxta oo leen ci waxtaan fi Sénégal dara waru fee mën a ñaaw. Sénégal dañ doon wax réewum teranga la benn bopp la mais léegi def nañ ko 16 bopp fu ne ñu sànni fa parti nañ defaraat musique bi suñu musiciens yi ay nañ studio yi am nañ qualité nañ defaraat musique bi ñu te jàmm pour quoi pas affaire réew mi ni mu yëngoo woon artistes yëpp génn def compilation ci diggante Macky sonk jàmm dell si réew mi. mais dañ leen dañ leen di xaar ci loolu mais doo leen ko def parce que da ngeen di ragal a féete. ragal féete kan lañ fi ragal féete. moom maanaam parce que dafa nakaree wax da ngay wax ñu naan pouvoir da laa jënd wala opposition. pouvoir ak opposition ak yooyu yëpp amul solo jàmmi réew mi lañ soxla jàmmi réew mi moom lañ soxla te Sénégal jàmm ko jig te metti na trop metti na torop barki yonent bi ñii ñi ngi ñii ñi ngi leen di waaj a génn ci location ñii buñ añee doonu reer metti na trop barki Seydouna Mohamed nañ delloo si réew mi xool nu mu defaree réew mi wàññi lu yaas bi defar dund gi xam nga loolu mooy affaire bi quoi kàjj gu kàdd gu mujj ci palaato bi maa ngi gërëm nag ah borom studio bi ah borom studio bu baax bi Baye Assane Pa Aline Kassé maa ngi koy gërëm waaw séeri lay maxtaar maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm sunu caméraman bii nga àndal di la ñaanal di la gërëm di gërëm man tamit sama waay staff di gërëm les amis de Djibril Diop di ñaan réew mi yàlla na fi def jàmm ci barke Serigne Babacar di ñaan màggalu Serigne Touba gii yéen chauffeur yi daf leen nànk te ngeen wàññi paas yi nag dafa naane geen réew mi boo leen xoolee ci ami tolof-tolof la jóge ñii seen alal taal nañ ko ñii bien yéen amoon di ci suturlu taal nañ seen station def leen ci paas yi xéewal te ngeen daw nànk ut ay chauffeur bu kii gëmmentoo kenn ki wàcc jël accident yi dañ cee doyal yal na yàlla sàmm musal ñun ci barke Seydouna Mohamed ñi nga xamante ni màggale leen yóbbu bu ñu demee nañ màggal ñi nga xamante ni bu ñu demee nag di jël seen loxo di rocci portable yu jàmbur yal nañ leen jàpp ci barke Matlabu Chifa yi. ñiy sàcc sëba yi ak téléphone. sëba yeeg yooyu yëpp yal na leen bàyyi te gis nga sëñ Mountakha jël na décision bu bees de bàyyi faale ñoo yor Touba téye leen seen loxo yi te ngeen dem liggéey yi wasalaam di wax nag ah kontaan naa ci sama doom ji kor buur siin buri baa suñ juf buri ma sambay mbayaan séeréer saa nga naan uganga tigtigoo taxut ca bires doore bala ban bires <laughs> baax na jërëjëf pap <laughs> kontaan naa <laughs> gaaw na <laughs> waaw baax na <laughs> dinañ ci waxaat <laughs> dinañ ci waxaat mbégte ak contentement saa su nekk nii lay demee ñu dem seeti ay ndaanaan dalal leen tey nag ki ñu dalaloon gis ngeen ko muy Pape Djibril ah, euh, Djibril Diop. ah mhm, ah, ah euh, may gërëm moomu parce que des fois ner dina tàng man lépp dama koy joxe ba mu mat. fi mu toll nii maag moom yëf yi day gën a tar parce que fi ñu jëm fi ñu jëm sunu borom mi ñuy dimbali am na ñoo xamante ni mi ngi leen di déranger bi nu yégee na gën a defar toogaay toogaayam ma gën a defar sama toogaay. mooy sa manager. maag moom danoo war a doon une heure vingt neuf ak une heure et demi bu ma doonee vingt neuf mu doon demi. waaw gumba taxlu man loolu laa gëmaa ah. képp ku wax ci Jibril danga nga soxla ci Jibril dara Jibril bañal la ko parce que Jibril dafa am lu muy doxee da nga daan ànd ak nit mu doon sa ménagère mu na nga def émission muy oo kopp nan ko damay dem Maroc ak damay dem Dubaï te caaree gaar mosoo fa dem nañ bàyyi fu ñaari nit di ànd di liggéey ñu fay jéem a wax wasalaam yal na nu yàlla musal wa damiran kulla axdaa i tudduru la naa xam ne usul la naa yàllaaw yàllaaw